bu demee ba jéemaane def lii yi bu mag yi effet yi yii nii ngay gis jeel bi nii yàlla nii seen yaram yi nii ubbi seen yére yi nii ñii simmeeku yaramu nit ñi ngay seen picc yow da fay dugg rentrant amoo picc amoo dara nga dend par force da kay bomb par force sa yaram bu séexoon nag yaay xam ak sa feebar jel bi tàng na tàngaay boo xam te ni yow nit rek céléru yi céléru nit rek nit nit fu ñu dagee nit rek même bu fa tegee mille ventilo day tàng nit moo ëpp doole que ventilo ay courant yi ngi yëpp ñoo leen ëpp doole parce que wala xadd naa bani aadama ñun ñoo branché lépp luy tàkk tàngaay bi nekk biir sang ba dëgg dëgg tàngaay ba fa nekk sam waaye tàngaay bi nekk biir kaso parce que c'est tellement populaire nit benn benn néeg boo xam ne ni moo ëpp doole sax li nekk biir marché te tellement populaire nit ñi ci biir néeg bi comme ay yamba foofu mënoo fa dugg di nekk nit foofu boo bëggee yàq nit yóbbu ko 100 mètres boo bëggee yàq nit yóbbu ko 100 day dem ba ñàkk jom mais mais am nga noonu def Sénégal am na fu ñu la dugal jàppale maîtriser pendant quelques weer wala quelques jours baal la nga dem man am naa benn problème dugg fa 100 mètres jours ñu wax adduna bi yëpp sama mère mën na ko yëg sax jaar fa dee parce que xëy na ma mel si moom. mais donc ko nëbb 15 jours jarul wax tele jarul ay weer bi di ku nekk yor sa lamine di wili paane nii nanu suturaal suñu bopp te suturaal nanu am sutura suñu bopp Sénégal quoi ñun léegi dafa mel ne ñu ñagi sax ñoonu gën Sénégal amatuñu diine amatuñu lislaam amatuñu concept amatuñu amuñu benn culture loolu loo tax ñu songi àll ba boo xoolee si biennale bi paase bi tubaab bi ñëwee danoo songi àll ba si pël yi pour xam sax nu mën a yóbbu te rëbës rek bàyyi du kaso de 37 prison moo am Sénégal état bi nag na si jóg même bi ba maître Sidiki xool kaba ñëw mu wax na ba sonn dem keneen ne keneen na wax na ba sonn te maître Sidiki Kaba laa gën a am confiance moom mu war a jàppale jël tax moom moo jàng affaire kaso te moo xam kaso yi ba xam seen terrain yi tey dem na mandam daf ma def démissionné moom moom la moo xam mais li may wax état bi rek kaso bi waaw moo jar a àtte quoi gis nga boo bëggee dëgg dëgg ba atu góor jigéen tu ata kaso la génne ñu ngi naan ay móoda góor jigéen ay kanaare nii nii kaso la góor jigéen génne te kaso moo gën a garaw te ba léegi nii xoolal ma nga fa mais foo mu nekk dafa xat nit ñi dañuy korante nii nii te boo nekkee yembar boo tëddee ñeneen yaa ma gën a xam kaso la affaire bandi la bandi mën na def dara pendant cent ans doo ko xam war na yàlla góor jigéen ci kaso la génne man a yan yi du ma ko wax mais boo bëggee dégg dëgg boobu góor jigéen si kaso la génn parce que yow collé chaque jour ngay collé góor chaque jour collé nii nii collé nii yow bu fekkoon sax da ngay kaso mosoo bu gis ku tëdd bu tëdd jotee ku tëdd jaaxaan nii nii nii nii nii rek wet nii kenn nii kenn nii bu dee pakataas bi nii la yéeg si kaw keneen ñuux waat nii mais pakataas bi ci suuf nii moom mooy dàmbaloo bi léegi foofu nag nga rangale fa ay nit tii nit am góor ñoo xam ne boo leen xoolee da nga yàgg sax ay jigéen la ndax seen wàññi seen wàññi ñoo baax léegi yéen jërmaan yu son yi nag bu ne ba yàgg foofu nag mën na la teg choc xam nga wax sans départ si góor na mel góor am na ñu lay xool ñamel am ñu lay tamit sans départ maanaam li naan gaynde bu yabee noo bukki bu yebee gaynde si doxin baa tax nekk si kaso bi mafia bi am si biir chambre yi bokk te moo xam benn affaire moo xam benn affaire de te problème buy amaat nii ñoom daan fàttali passé li am ak li gar yi dund ak li ak Germanie li ñuy dund ba tey bokkul ñoom la moo tax Sénégal pourquoi Sénégal mënuñ def documentaire ko si jeel yi fekkee dëgg la nan def documentaire si kaso yi mais allez nan def documentaire bi jël ngeen ma billaahi bu ngeen defee benn vidéo si jeel yi da ngeen nit ku xool nit ku xool émission bi re xaru ñu ko xool boppam di jooy billahi wallahi c'est tellement man bi ma njëkkee dugg romb 100 mètres di dox am naa njëkk gis ay loxo yu def nii ay kànnaar ay yëre yoo xam ne am na ni ay yu 1804 ay bidon yoo xam léegi su fekkee benn directeur moo ñëw biir 100 mètres nga pour visiter waa 100 ñoom ñëpp ñoom dañuy dugal gars yi si biir néeg yëpp mbuus yi bagage yëpp suñ koy ñëw si biir néeg bi boo dee booy dox da nga gis mu naaj quoi fekk na néeg bi mais ñaata mais nga laaj rappeur mu dugaloon foofu ñuy jooy rappeur yi dugaloon biir 100 ñuy jooy mais laajal ñooñu laajal ngaaka benn bu bu duggee man fa doon tëdd si booru pot bi mais dañoo fëgg appel dafa daw ñu ñu ko taral appel lañ fëgg appel benn benn quoi boo tëddee chaque jour dañ la yee 6 heures du matin il faut conditions yi di changer ñu xam ne ñii ay nit lañu quoi chaque jour nga génne nit ñu ñëpp taxaw Moussa présent te boo jëmee. yaa ngi sëli